ngeen xar kanamam ci réew mi waaye nag bi mbas mi duggee ci Sénégal da cee rawati docteur Boubacar Signaté médecin urgentiste bokk itam ci SOS médecin docteur ñu ngi lay nuyu di rafetlu sa collaboration ni nga koy defee ak euh, plateau télévision yi. maa ngi lay fay di fay sama. hôtes yi fi nekk yëpp di di nuyu euh, téléspectateurs yi. Mhm. Cheikh Tidiane Chérif. waaw docteur ñu nuyu ko rek comme ni nga ko waxee ñu wax ci mbas mi nag euh, gis nañ ni jamono ji cas yaa ngi gën a yokk démb ñi ngi woon ci huit mille neuf cent quarante huit cas. Mhm. ñi ci wér di mille deux jamono ji ñi nekk ci sous traitement ñi ngi ci deux mille sept cent soixante am na ci téeméer ak juróom-ñaar fukk cent soixante dix yoo xamante ñàkk nañ ci seen bakkan mu mel ni mbir yaa ngi yéeg kañ lay wàcc. Euh, waa defe naa suñu la première fois bu ma ñëwee fii waxtaanoon nañ ci cours bi naka lay évoluer mhm. euh, bo loolu ay prévision la woon euh, gis nañ ni ay pays yoo xam ne ñu nuñ koy xayma xëy na moo gën a yemb ñu nuñ koy defee cours bi noonu lañ ko gisee en fonction mu matuwaay yu ñu jël ni ñuy gérer seen population bi ak ni ñuy gérer faj bi mhm. fii suñ difficulté mooy euh, man personnellement amuñu visibilité bu rëy boo xam ne ñu permettre ñu mën a situer par rapport ak ak pandémie bi mhm. parce que xëy na nu ñu koy xayma wala ni ñuy joxee information bi mooy mooy gàllankoor loolu ce qui fait que mhm. euh, li koy gën a firndeel mooy defe naa biñ commencé ba léegi am nañ fii ñett wala ñeenti pic muy wàcc di yéeg nan lañ ko war a euh, xayma wa non parce que indi indicateurs yu ñuy yu ñuy Euh, ak ni ñi damay jël benn exemple rek par exemple euh, moi j'aime jox ay exemples yu concret boo jëlee par exemple euh, taux de positivité mm-hmm. indicateur bu baax la bu ñuy utiliser feneen mm-hmm. mais niñ koy xayma après parce que taux de positivité mooy boo jëlee li nga testé li nga mm-hmm. testé ñaata nga ci am ñu ci am doomu jàngoro ji mais loolu boo boo changer ñi ngay tester rek da ngay changer nombre bi. Mm-hmm. or fii par exemple dañu bugg a xam virus bi fan la nekk doomu jàngoro fan lay circuler. Mm-hmm. dama jox benn exemple par exemple yéen ñaar ay xarit ngeen ay xarit benn bakkan nit ñi dañuy faral naan boo gisee Ablaye rek gis nga Chérif. Mm-hmm. mais loolu plus ngay gis Ablaye plus ngay gis Chérif mais ça veut pas dire que boo ñëwee TFM doo gis Chérif. boo demee kër shérif doo ko fa fekk donc boo boo nee rek il faut que ma gis ab live pour ma mun a gis shérif sa pourcentage wala sa sa lim bi ngay gis shérif du bari mhm. ce qui fait que euh, taux de positivité bi ñu ngi koy amee ci ñi jege virus bi maanaam euh, sujet contact yi ñuy suivre mhm. mais ñooñu ñoo feebar ñooñu ñoo woote am na ñeneen ñoo xam ni feebaruñu xëy na ñoo am doomu jàngoro ji di ko wàll ñeneen mm-hmm. li koy firndeel mooy li ñuy woy transmission communautaire parce que mm-hmm. ñooñu mm-hmm. kenn suivre leen dañuy jékki-jékki rek ñu gis leen ni dañu feebar ñu jël leen boole leen ci lim bi donc indicateur boobu lu am solo la mais il faut nga xam fan nga koy dem fan nga koy seet euh, am na yeneen indicateurs yoo xam ne aussi pourtant ñu ngi koy calculer mais duñ ko duñ ko duñ ko jox par exemple boo jëlee indicateur bi Union européenne utilisé par exemple pour fermer ay frontières am. Mhm. loolu la ñu woowee taux d'attaque taux d'attaque mooy boo jëlee cent mille personnes bu nekk bu exposé wu ci virus bi. Mhm. ñaata ñoo ci feebar. Mhm. donc loolu benn xayma la boo xam ni il faut mais cent mille personnes yi. nekkul cent mille contacts cent mille yu tas ci ci réew mi la. donc loolu war nga ko mun na calculer. sur le plan national calculer ko par région par calculer ko par département mhm. loolu mooy gën a am finesse ci analyse bi nga mun a def pour pour xayma feebar bi ak kon looloo tax ñu baare ñu euh, union européenne ne duñ ubbil seen frontière Sénégal waaw parce que dañuy considérer ni ku am doomu jàngoro ji parce que parfois erreur enfin pas erreur mais li frustré nit ñi par exemple ci li may dëgg ci population bi dañu ne par exemple réew mi moo ñu ëppale fuuf ñu ay cas wala ñu dee waaw exactement pourtant ñoo ñu ngi mën a circuler mhm. aajuwul ci ci nombre décès bi parce que taux boobu li mu li mu lay permettre nga def mooy protéger sa population par rapport ak apparition ay ay foyer épidémique te xam nañu foyer mooy law après ce qui fait que plus nit ki wala pays bi wala population bi ñi fa am doomu jàngoro ji te gisuñu leen ñuy circuler plus ñuy bëri wala plus nga leen di accueillir sa dëkk plus ngay ubbi ay ay foyer donc indicateur boobu loolu lay loolu lay servir euh, ñun ñu ngi ya 3 4 jours ñu ngi à peu près à 50 50 virgule 78 te ñooñu. ñu ngi laajte pour net pour 100 000 habitants à peu hmm. je pense que on était à presque 59. après sa varie en fonction bu Dakar bokkul ak bu Diourbel bokkul ak bu Tamba bokkul ak bu bu Kédougou mais après mooy ñoom mooy national la ñuy jël parce que ki génn sa réew mhm. doo xool ban région la jógee aéroport lay international lay jaar génn ñoom ñu ngi ñu ngi considérer ni que soo amee taux boobu bu nga xam ni euh, motul euh, seize seize pour cent mille habitants te nga am euh, même boo amoo amulee euh, politique de surveillance boo xam ni mun nga ko fësal. Mhm. mun nañ la permettre ou bien soo amulee taux boo xam ne aussi mun nañ ko fësal boo amee ba vingt par exemple pays noonu lañ leen rangé. Mhm. entre États-Unis Chine Brésil yooyu mais ñun ak suñu cinquante ça va être difficile. que ah nit ñi accepter ñu. war nañoo gën a góorgóorlu kon. baax na ñu taxaw leeral foofu parce que comme ça revient. Mhm. seize pour mille yi fi mu jógee. mooy Union européenne dañu def seen moyenne. Mhm. ci pays yi nekk ci Union européenne bi yëpp. Mhm. ñu jàpp ni ils ont un taux de contamination de seize pour cent mille habitants ci seen moyenne. Mhm. du France rek du Espagne du Italie. moyenne du Union européenne ñu nekkoon pays bu ñuy jëflanteel. foog nga nekk ci niveau boobu. loolu moo indi seize pour cent mille habitants mais docteur lii dëgg aussi mooy. yaa ngi wax ay perspectives yu heureuse gis ni mu ngi wàcc mais euh, c' est que montrent les chiffres chiffres yi li mu wone mooy. Mhm. taux de positif bi barki dem dañoo battre record 19 pour cent. presque ñu ngi voilà euh, donc loolu test yi donte wàññi nañu ko. Hmm. retour taux de positivité bi dafay dafay gën a yokk loolu loolu euh, xel jàppagul ni affaire yaa ngi wàññeeku. Hmm. donte test yi. mille et quelque la woon mais léegi ay 700 rek la ñuy def. waaw loolu parce que boo boo xoolee. il y a une semaine. Hmm. est-ce que wala dafa gën a wax. non c'est sûr que virus mu ngi gën circuler. Hmm. parce que man ci terrain bi laa nekk man li may gis laa mën a wax xëy na am na ku keneen ku nekk gën kaw koo xam ne mu ngi gis ñu mel ni man ñu bëri. Hmm. mais man ci suuf laa nekk man ñi ñi am feebar beeg ñi ñuy transporter ak ñi ñuy consulter laay gis suba ba ngoon. ñi may gis par bés. muy gën a yokk par rapport ak li ma doon gis par bés y a une semaine y a dix jours wala y un mois chiffres yi nag <coughs> mun nañ ko tourner dans tous les sens boo jëlee yaa une semaine à près dañ jëloon décision politique bañ a test si ñenn ñoo xam ni ay jeunes lañ mhm. amuñu benn comorbidité maanaam amuñu beneen feebar boo boo boo xam ni doomu jàngoro ji bu leen daalee dañuy gën a dañuy gën a sonn mm. euh, ak ñoo xam ni wala dëkkuñu ak koo xam ni dafa am comorbidité mm-hmm. donc boo wàññee ñooñu ñii jàmbat ngay gën di gis mm-hmm. donc donte da ngay wàññi ñi ngay testé mm-hmm. ñi ñi feebar yi ngay gën a testé loolu mooy expliquer taux de positif mais encore une fois euh, ñi ñuy testé ñi ñuy testé groupe bi ñu leen di teste déjà groupe boobu mun nañ njort ni ñooñu presque bu ñu amee mandarga bi boo ji defee test bi da nga leen di nga fekk foofu doomu jàngoro bi mm-hmm. par euh, à contrario boo boo testé ñoo xam ni xëy na amuñu doomu jàngoro ji mais jege nañ koo xam ne am na doomu jàngoro ji mm-hmm. donte amuñu mandarga bi mm-hmm. loolu moo doon expliquer taux yi doon yéeg parce que boobu ñu ngi doon testé ñëpp ñoo xam ni xëy na euh, jegewuñu trop doomu jàngoro ji donc lool moo expliqué taux de positivité bi euh, docteur am na aussi beneen cas boo xam ne ni depuis un mois un mois et demi dafa dem ba commencé bari mooy les décès bu yàgg ba dañ doon gis ni dañ doon toog benn semaine tu as deux morts dans la semaine trois mm. morts mais léegi c'est devenu systématique pratiquement chaque jour tu as trois morts dem ba quatre morts mm. alors que euh, réanimation ña fay nekk souvent day duy faral di évoluer bu bari bari bari même chiffre bi dañuy faral di di nemmeeku lan moo waral décès yu bari yooyu bon décès yi c'est vrai que bu ñu koy fësal dañ koy dañ koy gis day gën a on a l'impression dafay gën a bari mm-hmm. mais justement problème communication bi ñu am ci ci mbas bi loolu la sari boo jëlee téeméer bu nekk mm-hmm. presque juróom-ñett fukk ak juróom yi presque man noonu laa noonu laa koy woy dara du leen jot. Mhm. dañuy soj rek. Mhm. grippé dañuy wér. Mhm. ñooñu amul problème euh, fukk ak juróom yi ñoom la fajkat yi di gis xëy na ñooñu la ñuy entré hôpital. ñooñu aussi ci groupe boobu la juróom ba juróom-ñaari di dem réanimation. te ci ñooñu aussi la benn walla ñaar di ñàkk bakkanam. donc boo ko jëlee en terme de de gravité walla de mortalité. du feebar bu grave. Mhm. donc suñ communication xëy na au début peut-être foofu lañ ko foofu lañ ko raté. Mhm. par contre problème bi mooy li ñu woowee flux saturant cest boo boo jëlee. Mhm. boo jëlee euh, je sais pas boo jëlee koo xam ne day day wocc biir bi du daw. xam nga loolu du feebar bu grave. mën nga ci gis kenn pendant un an. mu def la ñaata trois cent soixante cinq personnes. mais est-ce que ñooñu trois cent cinq yooyu mën nga leen gis en deux semaines. da lay dikkee presque. entre cinquante deux ba cent quatre personnes par jour. ba pare ñu ne la ñooñu ci quinze bu nekk groupe cinquante bu nekk il faut nga hospitaliser si quinze. loolu mooy problème bi ce qui fait que euh, li mu ñi dem réanimation du bari. Mm-hmm. mais dañ fay yàgg. te bu ñu fay yàggee amuñu jumtukaay bi loolu yàgg nañ ko wax depuis le début. Mm-hmm. amuñu personnel yi amuñu expérience bi pour faj leen. Mm-hmm. donc bu ñu eggee stade boobu ñooñu. la ñuy ñàkk presque bés bu nekk. très bien donc loolu mooy expliquer. ok euh, docteur ñu des foofu ba léegi. Mm-hmm. Euh, dañu gis leneen loo xam ne constat la ñëpp ko def muy relâchement. Mm-hmm. ba ñu nee il faut apprendre à vivre avec le virus dafa mel ne ci la gars yi déposé seen weer seen ay ngànnaay du ñëpp nag euh, boo leen waxee rek ñu dem ak mbas mi mm-hmm. dem ba banaliser ko comme ni ni ko Cheikh di waxee sànq nga dem ba taux de positivité bu ëpp 21 pour cent nit yi. defatuñ sax taxaw seetlu de xool ñaata ñoo am mbas mi ñaata ñoo faat dañu dem ba mujj yàgg dañu dem ba ko commencé di ko miis relâchement boobu am fan la mën a euh, yóbbu mbir mi. et mm. puis ak gis kay itam jàppoo ni jot nañu defaat beneen communication bi wane ne apprendre à vivre à vivre avec le virus ne signifie pas que. guerre bi dafa jeex voilà défier le virus waaw. loolu mooy loolu moom c'est c'est c'est ni ni ñuy fonctionner nii. ni ñuy ni ñuy relâché wu nii bañ a respecter mesures barrières yi bañ danger bi mooy ñi ñi gën a féete ndaw. Mhm. xëy na am dina am ñu ci ñàkk seen bakkan mais du bari. Hmm. du bari hmm. parce que feebar yi noonu la demee. Hmm. par contre ñi gën a faible. ñu gën a euh, yu seen at yu bëri. ñu gën a am feebar yi ñooñu la ñuy gën a lor. donc ce qui fait ñu nekk ci biti bu ñu bàyyul xel ni ñoom. ñoom ñooy danger bi par rapport ak ñi ñu war a protéger. du sotti. léegi nag naka lañ koy transmettre naka la ñuy communiquer naka la ñuy waxee ak groupe boobu mm-hmm. loolu mooy difficulté bi départ bi nag vivre avec le virus nuñ ko nuñ ko jaayee c'était pas la bonne méthode mm-hmm. Mm-hmm. c'était pas la bonne méthode deuxième chose bi relais communautaire yi aussi yi ñuy wax parce que problème bi ci suuf la nekk mais loolu ñun yàgg nañ ko wax depuis le début cest à que il faut pas que ñu centraliser gestion bi parce que ñi nekk ci suuf virus bi ci population bi la nekk. Mhm. ñan ñoo nekk ak population yi médecin de ville yi la pharmacien yi la kinésithérapeute yi la mhm, mhm, euh, relais communautaire yi la ñooñu li ñu soxla mooy information en temps en heure bu fiable am euh, confiance population bi mun na jottali information bi mais boo daggee euh, parti boobu di mm-hmm. communiquer ci kaw mm-hmm. ñi nekk ci suuf duñ la dëgg mm-hmm. relais yi nga war utiliser amuñu euh, information yu fiable yu ñu leen mën a jox communication bi du du jàll correctement donc relâchement bi ni ni niñ communiquer par rapport ak euh, notion vivre avec le virus je pense que bu ñu ko wo wolofaloon sax Euh, moo moo doon gën. nun ko war a déggee ko war a déggee. Euh, voilà ni ñu ko war a déggee ci ci wolofal. Mm-hmm. je sais pas du ma pas wolofal maanaam vivre avec maanaam ban communication bu baax ngir ni ñi xam ni. vivre avec communication bu baax mooy nga jox leen loo xam ni dinañ déjà dinañ xam li ñuy def. Mm-hmm. foog nga wax leen li ñuy def. man la fait que ma sol masque ban njeexital la am. Mm-hmm. su ma ko solul tamit ban conséquence la am. Mm-hmm. par rapport ak man ak par rapport ak euh, ak ñeneen yi ak ñi ma wër. Mm-hmm. mais pour loolu soxla naa xam su ma feebaree kan laay wàll. ñaata nit laay wal su ma solee sama masque. su ma solulee sama masque aussi. Mhm. ñaata nat ñaata nit laay protéger wala ñaata nit laay contaminer. Mhm. pendant combien de temps par exemple exemple boobu am na pays yu koy utiliser mooy euh, RO bi ngeen di dëgg wala R0 mooy mhm. taux de contamination de base maanaam képp ku feebar ñaata nit ngay wal ñun am nay zone yoo xam ni ay 10 lañ toll 10 12 parfois ba 17. feebar bi du taxaw tant que man su ma feebaree ki may wàll. ëpp na ñaar mm-hmm. ëpp na benn mm-hmm. il faut mu wàcc gis ñu ngi taux boo xam ne c'est quasiment multiplié par dix mm-hmm. soo ma joxee information boobu par région par département mun nga ma ne région Dakar yéen a ngi sol seen masque y une semaine seen taux bi mu ngi woon dix tey wàcc na six donc yéen a ngi gën a góorlu donc des na encore tuuti rek ñu gën a wàcc feebar bi gën a taxaw chaque jour nga leen di jox information bi à contrario nga gis keneen koo xam ni seetlu nga relâchement bi gis nga ni taux bi mi ngi yéeg mun nga communiquer ak ñu il faut nga jox leen loo xam ni dinañ mun a projeté wu dans une semaine dans mhm. dix jours ñu xam li ñuy def au quotidien mhm. ban conséquence la am ak ban importance la am. mais ci loolu dafa fekk ñu ñuy dëgmal quand même tabaski fii ak daanaka ay bés. ñu xam ni Dakar quand mooy épicentre bi te aada mooy ñu ci bëri après dañuy dem ci dëkk yi laaya ngi nii day dem xam naa Mbour fa lay jullee. Mm-hmm. ñeneen ñi aussi dem ci gox-goxaat yi lan mooy risque bi ci jamono ji nga xamante ni quand même mbir maa ngi wulee ñaay fii ci Dakar. waaw risque bi mooy ñu transporter virus bi fu nekk am na région yoo xam ni euh, ay zéro cas am par jour am nañu seen parti population boo xam ni ñu ngi biir Dakar. Mm-hmm. wala ñu ngi zone boo xam ni virus bi mu ngi koy mu ngi fay circuler. Mm-hmm. risque bi mooy ñu jëlee ko parce que virus bi moom dañ koy transporter. Mm-hmm. du naaw du jël oto du dawal dañ koy transporter suñu loxo ak suñuy suñuy jumtukaay. donc risque bi mooy ñu décaler ko euh, yóbbu ko ci yeneen yeneen régions yi. maintenant fu mu nekk nii tëj Dakar am na ñu koy ñu koy ñu koy wax mais ça va être très compliqué ñu tëj dakaar nit ñi mënuñu ko comprendre parce que xëy na bu ñu ko waroon tëj ak moment bi ñu ko waroon tëj ak jumtukaay yu ñu waroon utiliser. Mm. dépassé nañ ko. Mm. donc fu mu nekk nii mesure barrière yi rendre mask yi obligatoire appliquer mesures yi loolu rek moo ci mën a génne sinon dañuy jël virus bi Dakar wala yeneen zones yi. Mm. yóbbu ko ci zone yoo xam ne c'est des zones stériles. docteur est-ce que li gën a nekk problème aussi du li ngeen umpule ci feebar bi ñëw nga fi ñëwati fi. Hmm? jamono yi daawuñ sol masque tey ñëw ñu wax ko sax day pour auditeurs yi xam docteur moom moo opté pour takk masque waaye ñun tamit lu ñuy rafetlu la parce que moom moo nekk en contact ak maladie tout le temps comme ñaaw na njort ñun moo ñu gënal ñun ah, suñu masque voilà suñu masque ngi <laughs> mais est-ce que loolu li ngeen umpale ci feebar bi hmm. mooy problème bi ba tey jii c'est-à-dire que chaque jour ñu découvrir yaa ngi wax sànq mag yi mais mag yi ni muy manifesté woo ci ñoom bokk ak ni muy manifesté woo ci xale yi wax nañ ni mag yi du ñu am fièvre mun nañoo bañ a am bopp buy metti ak yooyu ñoom manque appétit la leen di feeñe te loolu avant ñu koy découvrir def na njaaxum ci biir kër yi mm-hmm. muy fii wala muy feneen est-ce que li ñu umpule ba léegi mooy problème ci feebar waaw ci la ci la bokk mm-hmm. ci la bokk te loolu bés bu nekk la mais feebar bu bees noonu lay noonu lay fonctionné feebar bu bees mm-hmm. euh, ba tey jii nii ba sax dëmb ba ci week bi am nañ ay réunion yoo xam ne chaque jour médecin yi di nga gis ku nekk ku génne benn signe boo xam ni amuloon mm-hmm. bu ko génnee xëy na am na keneen ku ko njortoon mais comme bokk ci woon te dëggu ko fësalu ko mais bu amee kenn ku ko génnee rek mooy indi ñaareel bi génnee ko troisième bi génne ko quatrième bi génne ko ñu soog ko boole ci ci ci loo xam ni boo ko amee mun na njort ni euh, nit ki am na doomu jàngoro loolu aussi mooy difficulté wu communication bi aussi difficulté wu faj bi difficulté wu gis ñi ñi feebar population yi bokkuñu donc population chinoise ak population sénégalaise bokkul mhm. manifestation yi bokkul environnement yi bokkul seen antécédent yi bokkul seen histoire médicale bokkul mhm. donc ce qui que mun nga am sax même symptôme bi ni muy manifesté aussi man du manifester wu si si yow noonu donc loolu moo loolu mooy importance su euh, beneen leneen aussi lu muy indi li li li nga doon par rapport ak sa question mooy lu li li ñu daan naan fake news rek boo seetloo sax fan yi xaw na wàññeeku mm-hmm. tuuti mm-hmm. mais au début bi ci la gën a tar mm-hmm. parce que information médical noonu lay fonctionner cest di que day am bu nekkee feebar bu bees la wala jàngoro ju bees wala sax garab bu bees ah bu ñuy traité par rapport ak feebar bu bees information yi c'est c'est additive c'est-à-dire que chaque fois day am lu bees yu ci yokku c'est aussi soustractif chaque fois day am lu ciy wàññiku mm-hmm. parfois sax day day soppi mais vitesse bu muy soppee su la mayee temps nga gistu ci ci ngay ci ngay gën a euh, mun a agir mm-hmm. mais loolu aussi day ñëwaat toujours ci communication bi mm-hmm. euh, am na pays yoo xam ne ñu ci ñi ciy wax di communiquer ak population bi benn la wala ñaar wala ñetti nit ce qui fait bu amee information bu bees moom mooy ñëwaat ne leen dëmb maa waxoon lii fii ak fii ak fii laa ko tegoon tey mun naa ci dindi lii parce que lii ak lii ak lii même nit ki kooku mun nañ ko gis mun nañ ko wóolu mun nañ ko comprendre mhm. mais man tey su ma ñëwee joxe benn information suba Chérif ñoo joxe contraire bi ginnaaw suba yow nga dellu siwaat ci man li ma waxoon nit ñi dañuy ne ñetti version la donc am na koo xam ni. Mhm. li muy wax soit dara leeru ko si. Mhm. wala waxul dëgg. ci pooru masque yi rek man laa bëggoon ah parce que parce que gis na ne dañ ko rendre obligatoire fii ci Sénégal terewul nit ñi ba léegi nit ñaa ngi am na ñoo xamante ne duñ takk masque yi ci lieu public yi. gis nañ fi réew yoo xamante ni am nay ay sanctions yoo xamante ni quand dañ koy teg képp koo xamante ne jalgati nga fii ci Sénégal moom dañuy rappeler mais gis nañ ba léegi nit ñi jëfewuñ ko naka lañ mën a def ñi quand même comme ñi ngi relation wala duñ mel ñu continuer di takk masque yi au moins Mm. waaw euh, gis nga loo loo gis rek boo boo jëlee ay boo bëggee jël ay mesures da ngay expliquer lu tax nga koy jël foo ko teg et tout ban njeexital ban importance wala ban loo ciy xaar. Mm-hmm. après nag di nga am groupe boo xam ne ñoom dañuy comprendre ñu appliquer li nga wax. Mm-hmm. am na groupe boo xam ni duñu ñu comprendre ñoo da nga leen ko appliquer loo. am na ñoo xam ne nag dañuy comprendre mais du ñu bëgg a appliquer. c'est mm-hmm. la même chose sanction yi foofu lay foofu lay egsi. am na pays yoo xam ni France boo circuler amoo masque cinq euros la dañuy sa carte la ñuy jël léegi policier dañu yor ay terminaux léegi léegi lañ lay débité boo génnee tas ak beneen groupe. yore seen terminal bu ñu la jàppaatee dañ lay débité waat bu ñu lay débité deux fois trois fois. Hmm. booy génn da ngay sol masque. donc il faut juste ñu jël mesures yi ñu hmm. appliquer ko. Hmm. amul amul beneen euh, beneen solution. voilà euh, euh, professeur sànq yaa ngi doon tudd sax mbirum monde voté yi ci am ci wàllu recherche yi fu ñu toll parce démb ñu ngi dégg benn université bu nekk Oxford je pense bu ñuy wax ni génne nañ. am ñu ngi sori ci benn vaccin boo xamee ne gis nañu anticorps yi daal dina def liggéey bu am solo ci virus recherche bi boo xoolee diggante euh, loolu aussi moo gënoon au début moo gën a alimenté confusion bi ak fake news parce que euh, revue scientifique yu mag yëpp. Mhm. comme feebar bu bees la ak li muy lor au début dañ ne duñu ñu ñëpp lépp la ñu publier cest à filtre yu ñu doon def muy jël ay trois ans quatre ans ba mu wóor la nii li ngay wax ak sa gëstu foo ko teg jaar na yoon ñu soog la koo publier. Mhm. dañ ne képp ku gis loo xam ni rek lu bees la. indil ñu publier comme ça ñëpp nekk au même niveau d'information loolu moo gën a indi euh, confusion bi par rapport ak euh, vaccin bi li ñu seetlu daal mooy vaccin yoo xam ni feebar bu nekk vaccin yuy njëkk génn du nekk vaccin boobu moo gën a efficace ci feebar bi du nekk fee euh, vaccin boo xam ni moo moo néewle li muy lor loolu seetlu nañ ko ci feebar yu bëri laata sax bii muy commencé donc bi aussi yaakaar nañ ne du demee noonu mais ça va être exceptionnel que vaccin yu njëkk yi efficace ba pare li ñuy lor du du bari mm-hmm. Fatou Fatou mbokk dafa ne xam nga ci xar kanam bi bi ma ko gisee rek xam ni sama mbokk la ni taata suwokono i kak ñaadile inin dindigol est-ce que itini maladol men ɓe ñooka est-ce que suwokono dindigol ka ñappi kanne bang foy ka mu nekke non ni naata euh, en 30 secondes en 30 secondes mm-hmm. mbukana nga du donc ni nga sonero banta bunda sabalem donc isi folo dayele ka fula ñango dayele mais na saŋotol nkata ini sachet le karna donc na donni nin tamita bunda folo la ni yo taxu mm. i kari sachet le dayele donc si nafaanul bi bu law sachet wala kono. donc daan laaj rek ñoom ñu nekk kër gi. parce que gis nga ko mu ngi ñëw fii ak mas mais ci kër gi. ñoom ñu nekk ak malade yi comment ils font. bon nee moom presque xale yi sax ñoo koy jox muy dugal. daal yéeg sachet voilà mu dugal. du ma laal bunti et puis directement ci toilette yi la. <laughs> Ah. sangu de soog a soog a ñëw ci. c'est important Ablaye Cissé mu ngi doon macha allah ndax man ndax mënoon koo ko ci xar yi comme gars leen dem ci dara jaaralaay di làmbanteeg bi ñu docteur ah, il faut ñu rapidement yeeg eh, fooraay yeeg dara li nag fa nit ñi demee jaxasoo beeg laalante beeg hmm. yooyu loxo yi mën ci karaw yeeg yi dara mënu faa jaar waaw bon loolu c'est c'est am nañu ci bëri ñu ci commencé gëstu mais euh, li ñu wooyee zoonose maladie yi nekk ci ci mala yi hmm. pour mu jógee ci mala ñëw ci nit il faut mu mu soppi il faut mu muté. bu jógee ci mala aussi ñëw ci nit balaa muy jógee ci nit kooku dem ci beneen nit il faut mu muté waat encore. donc c' peu probable wax ma nag c' est impossible mais c' est peu probable. Mhm. que xar yi mun a transmettre feebar bi. très bien loolu leer na docteur euh, Boubacar Signaté